sëriñ cheikh ne fa tabaarakallaahu ne ñu ngi nuyu sëriñ Babacar Sy al amin ak njabootam gu tëdd gi dend ak moom ne ak kilifa yu tedd yi ñëw ñu bokkal jataay bi ak suñu imam ak suñu gan yu tedd yi ñu bokkal jataay bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci guddi gi di leen massawu ci coono yi ngeen toggoo te dara waralu ko lu dul sagu xadara bi di leen jaajëfal ci seen taxawaay ne nuyu suñu ñaari eh, Serigne Habib kàddoom yi rafet na sëriñ Habib Kebe fa tabaarakallahu li ñu bëggoon ci thème bi yépp yàlla def na génne na ko ñu sant bu baaxit alxaaji Mor imam qadi alxaaji Mor Mbay moom it tey ci rañaan gi jaare na fu baax fa tabaarakallahu yàlla wutuñu fayal ñu leen nuyu alxaaji Pap Xaali bu baax a baax di ma sawu coono bu baax ndax taxawaayam ñépp ràññee nañ ko ne di nuyu àddina xadara bi yépp nag damay wax tuuti rekk ci xale yi ni ko sëriñ Habib Kebe doon waxe ñu gën a góor góorlu ci woy jur yi tariqa bi baax na lool waaye boo respecté sa wayjur du bari njariñ ci yow ndax charte yi fonk sa ñaari wayjur ci la bokk dañuy dollente rekk dafa am lu ñu seetlu ci benn mbokk bu nekk ca Europe woy jaral ko mu bàyyi lépp ñëw ngir ñaanal ko yàlla ñëw fi mu yaakaar waaye seen doxalin ñoom ak seeni wayjur maa ngi leen di dénk nañ ci gëna góor góorlu bu baax ndax ki nga xam ni ba nga juddoo ba léegi noo mel ginnaaw yàlla moom la ba nga màgg mat li nga war a mat mu jël alalam yépp jox la nga génn nga génn tuuti rekk jamono jàpp la nga defe ni yegg nga woo sa jur sax tële nga ko waxuma la di ko dimbali daf ci am lu ma ci seetlu lu tuuti rekk ma xam ci xaw ci am kersa sax ndax mbokk mi baay bi daf ma ko jox mu jël taawam yépp ci li nga xam ne mooy xat-xat yi mu nekk bi mu yeggalee ma war koo joxaat pappam bi pappam nuyoo rek mu ni ko may ma ndax dama nekk ci liggéey xam nga loolu dafa baaxul nga defe ni def nga dara fekk loolu du dara nañu gën a góor góorlu bu baax jox respect way jur yi jox respect mag ñi nga xam ni ñoo nuroog way jur yi loolu rek la sëriñ xaybib kebe doon waxtaane xaaji moor lim doon waxtaane mooy cër bi yàlla defal yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moo weddam loo ñépp subhaana allazi subhaana allazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لولو موي بنتو تيبيري مام سيد الحاج مالك نوا أسوخني أسرى وفي وفي زكين قد خلت من شارمه لدي من النبو قوتي عمل حبي للخذ على نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله وقيل في رجب في ذلك الوقت عمل الآن سلام على المغترف الفضل على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله أسرى بي تشريفا لمك حتى رأى مرأة امين أيه طوفاننا على نبي وربنا دائما ما مي فرم دارجين اسرع به لو تشريفا لمك التي حتارى مرامين أيه الجسم nee li tax ma junj la loolu maanaam damay delloo njukkal sa way jur alxaaji mbay donda lu tara xaayo nen yéeng na baa ngay langaan mu tonk ak jibril nistuut mu fëgg asmaanu benneel ñu ni kooku kan la mu ni mën a jibril ñu ni ko koo àndal sëriir mi foor na baaje nga asamaan mu ni sayidu saalihiin kooku mooy sayiduna muhammad rasulullah ñu ni est ni kàccit ubbi adama ngi taxaw ak i ñu teeru ko misigal ko rëkkal ko ju ñu ngi asamaan nabi sant leen gërëm leen taraqaaye def leen nii ñu màggal yoneen taraqaay yoneen yëg na beneen appaloo ngay langaan mu toog ci ak jibril nistuut mu fëgg asamaanu ñaareel Iisaa ko teeru taraqaaye njol makke yaa leen ja taraqaayo nin yéeg na beneen appaloo ngay langaan mu tong ca jibil nis tuut mu fëgg asamaanu ñetteel yuusufaak yi taxaw ak i malakaam teeru ko mi digal ko rëkkal ko hymne nationalu asamaan nabi sant leen gërëm leen taraqaaye bàyyi Fatima taaleen jël tarxaayo nen yéeg na beneen appeloo ngay langaat mu toog ca Jibril nistuut mu fëgg asamaanu ñeenteel Idrissa ngi taxaw tarxaay njool makke yaa leen jël tarxaayo nen na beneen appeloo ngay langaat mu toog ca Jibril nistuut mu fëgg asamaanu juróomeel Haaruna ngi taxaw tarxaay def leen nii ñu màggal yoone taraqaay yonen yéeg nga bene nappaloo ngay langat mu tong ci ak jibril nistu mu fagg asman juróom benel musa ngi taxaw taraqaay ñol makke yaa ngay langat mu tong ci ak jibril nistu mu fagg asman juróom ñaarel ñu ni koku kan la mu ni mën a jibril ñu ni ko koo àndal sariir mi foor na mbaadu saadaa taxaw mu ni ki ñu bind saa ci barkeem laa jëli woon kooku mooy sayidul muqarrabin mooy sayiduna muhammad rasulullah ñu ni eskay ni kàccit ubbi ibrahima ngi taxaw ak malaakaam ñu teeru ko misigal ko rëkkal ko juñ ngi asamaan nabi sant leen gërëm leen taraqaa njool makke yaa leen gën taraqaa yonen yëng na benn rappoo ngay langaan nistu mu dem safara maaliku niiraan teeru ko mu visité ko taraqaa njool makke yaa leen gën taraqaa yonen yëng na dene napolo ngay langat nistuut mu dem sidratul muntaha sama alal buraqi sara fil muntaha ja al alxilaafu faraji jul kut mi jibril ni ko suma passé fi lèr yi lakk ma ne yalla jël raf-raf yonne mako ne ma mu xëcc ma batu abubakar guddi gunge muhammad inna rabbaka yusalli ne baat yàlla naan ma udnu minni ya muhammad udnu minni ya muhammad tarqa ba ca xadara yàlla attahiyatu lillah azakiyatu lillah attayibatu salawatu lillah assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu yonent bi ni assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin jibril malaaka yi ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu taraqaa njool makk yaa leen gën mu jox ko juróom fukki julli samaam ne mu koy wàññilu ba mu des juróom waaye samaam ne ko respecté juróom yi am yoolu fukki yi وتلك خمس فريضات يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مختدم فيا ربنا في أرضه وسمائه يا أمرنا على تصديقه باستفائه فإنا وذو الأشواق يا يا بدائي يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فما كانت الدنيا jërëjëf si waaw mu ne mooy yaa sëñ Babacar si Cissé nee na lii mooy classique gu kër gi waaw waaw yaa baax si jërëjëf ne yàlla nañ leen yàlla fayal ne moom li mu ci way bégal àdduna bi yëpp bés bi jot mu tombe ak loolu fokk suñu xel delu ci alaaji mbay doon yàlla yàlla yok leer ne di feddali sunu njaal ci ñaari xew-xew yi xew dem ci xale yi yakam ci gu upp ci seen dund bëgg koo ci saasi bëgg koo am ci saasi te fas yéene woo sonn pour am ko fokk mu metti moo tax ñu ngi jàll ñi nga xam ni wàññeeku nañu démb ci gaal gi lu tolleek ñaari téeméeri nit yal na leen yàlla yërëm accident bi xew

wala YouTube di wax lu la neex ci kilifa yoo xam ni yàlla ñoŋal na leen xormal leen yow nga nekk ndaw gu tooy xepp làq ko sa télévision ñama feeñal sa jëm jàpp kilifa goo xam ni di ko li ko topp ci njaboot ëpp nañu milliard ngay wax lu la neex ci moom yooyu martaba ñooñu xajul ci àdduna bi nañu dellusi si gën a feddali suñu bopp ci suñuy kilifa gën a bàyyi xel suñu bopp nii ko sëriñ Moustapha waxe dawal côté oto yi waxtu yi jot rekk nga fekk oto boo xam ni gaare nga ko lu yàgg nga profito fexe ba mu mën a daw pour nga mën a am li nga war a am seet sedduloo sax jullit yàlla yi te nga ni jullit nga nu mu la neexe rekk ci noo ko ame baax na walla nga yore produit boo xam ni dafa périmé ñemewoo ko naan nga jël lépp làq ko ne comme gàmm nañu nekk naa ko indi profitoo jaay ko yow ko la joxoon fetal attan nga rey nit yooyu nañ ci jóg fa tabaarakallahu ñu ngi ndokkeel ñépp di fedd li lii sëriñ Moustapha waxoon jële ko ci xalifa bi pour ganam ji nga xam ni mooy président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi war ñëw alxamis ginnaaw ëllëg muy ñaan na ko ñépp teeru loolu lañ leen doon fàttali di leen ziar ci guddi gi di leen massaw di leen wax jërë ngeen jëf ci taxawaay bi ci taxawu bi kenn ku ne loo yëg ni mu ngi naa yéwénal gàmm gi ci teraanga yaa nga koy def yal na yàlla wutuñu fayal ñu leen allahu xalifatuna aleykum allahu xalifatuna عليكم الله خليفتنا عليكم جزيتم خيرا وكفيتم شرا ويعطيكم ميرا وينصركم نصرا نصرا نصرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى